salaam fi lo nek général bu Fass ngi lay nuyu. di ya ngam jamm wa mu ngi yengu ana ana sama place bi fofu mbaa mu ngi do mu nday bay mo connection mo fofu day fofu day sama suñu place la mo wa lolou dem am. Mor connexion ne ko mang koy nuyu bu baax. di ko ñaanal lolou mom da fay nice mais bala dara bay mo nuyu ki ma gis. yaakaar ne. yaakaar ok ok non xaaral xaaral balaa nga nuyoo man maa sàkku jotaay bii. li <clears throat> tax ma sàkku jotaay bii mooy diggante ñaa bu ndaw ak général bu faas day combat boo xam ne nii sénégalais yëpp dañ ko soxla. ñaa bu ndaw daan na ay e moromam ba ñu jeex. ñaa bu ndaw daan na ay e moromam ba ñu jeex général daan na ay e moromam ba ñu jeex ñaabu wax la nee na ku mel ni général bu faas laa bëgg bëril waaw léegi nag balaa normal da nga koy normal rek mu bañ a yëngu waaw nga nuyoo jox ñaabu ndaw mu nuyoo waaw commencé maa ngi dana jàmm maa ngi dana jàmm bu baax waaw alhamdulilah waaw ajo kon ñaabu ndaw nuyoo la sa wàccuwaay ñu ñu nekk si live yëpp ñu seetaan waa diaspora bi yëpp wa ñu nekk Sénégal yëpp waaw di ko bëggee bu baax moom su grand grand champion la maa ngi koy bëggee bu baax ko dal jàpp. waaw noonu la demee ñaa maa ngi lay fay di la di la di la bëggee aussi tamit di wax ni waaw param tout moom moom lii la fi nekkee xool mu war a neexee rek moom mu def ko. moom mooy ñëw dugal moo dama expliqué ci yenn détails yi ma ne ko nag nettali moom ci gémmiñu borom ci lay dàqee ko noonu la demee. waaw loolu la demee man maa la cité parce que su gisee mu cité la tey champion nga ci làmb loo xamante ni war naa mën a wax ci yow. Mhm. waaw boo nekkoon leneen wala nekkoo jàmbaar du ma la cité ba wax si yow. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. te tey dafa toll foo xamante ni ñun dañoo bëri suñu morom def suñu ay preuve si làmb a bëri ak yéen. xam nga leen na xam nga yenn saa yi nit dafay def te du tàggu ay mboqam. waaw loolu laay rek mu dal la quoi. yow sa avance moom balaa nga ciy dugg moom di yow say mbokk yi da ciy baax lool. waaw dama ne la yow a xew dafa lu mën a xew maanaam lu mën a xew lan moo mën a xew. xam nga ni moom làmb ñu tax jóg. waaw ñun suñu live moom. dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo jël partagé ko làmb daal ndaxte suñu xoolee liñ am ci at ak li ñu joxagum làmb sonantagul dara dara dara dara dara suñu tarbiyu làmb sonn ci làmb yàgg ànd ay champion yu defar ñu yar ñu ba yenn détails yu bari sa doo ñu ci dégg comprendre nga léegi nag fekkee nit dafa jógee fële di la dëkku te loo xam yow mosoo gis ndax man yàgg naa ci làmb mais mbër ñëw di ma dëkku nii moom su ma ko gisee nii sax balaa dara di xew damay ñaanal kooku yàlla ji déggoog ay mbokkam. waaw xam moo tax may nag yow yaa may dëkk quoi parce que gars yi mën nañu. waaw parce que waaw parce nga lu ma. waaw parce que baam moo tax nga ne ñaar lan moo tax nga ne ñaar ndaw. ah non man damaa jëm ndax ñaar dafay nekk bu gëm ni man su ma la daawee làmb dina ma nangul man maa volonté man maa volonté taxaw làmb dëkku la ata sa avance sa avance bu avance bi ma ko joxoon ma ko rété ko parce que borom daal loolu du nekk mais dama ne dafa lu may expliqué man yi xam nga dara li say say mbokk mbokk yow lan lay daw ci bu faas xaw ma ma lay laaj si yow dara man samay mbokk man samay mbokk yow suñu moytu si yow dara si laa mag yow man mën naa bàyyi bëri xam ne man fu ma jëm ko dama ko ragal man fu ma jëm ragal lu ma ko yaa may dégg bu baax waaw dëral yaa may dégg bu baax dafa am booy bu ma doon laaj lu ne mu wax ko maa ngi lay dégg bu baax laajoon naa ko lii nag mais ci suuf laa parce que dañoo dañoon 2STV man ma wax ko ma ne ko est que tàggu nga say mbokk mais après bi mu moom ay mbokkam sax ñoo ko jël si biir làmb ji ne ko làmb ji jeex na da jàpp ne yow général bu Fass Nyabundau mini ndaw mii nii nii. non param tuur balaa dara di xew loolu loolu bàyyi ñaa mën a bëri te mën a ndaw. ndax yow man dama yàgg dem di la fa fekk nga ngeen ma indi ko maa yow xamante ma lay mën nay di dugg ci xamante ni bu dugg du laaj ay mboxam. bu faas da ngaa jàpp ne ñaar ndaw mën na daan ba tey ci côté boobu noonu li ma lay expliqué balaa dal di parce que tey balaa nga naan daan balaa nga naan daan xaaral xaaral non la de général xale bi xale bi daa gis ne xale bi daa gis ne non loolu loolu daa gis ne daan général bu faas moo gën a yóbbu ndogu param ndax xale bi day waaj xale bi day waaj nekk la grand champion déglu ma rek général <laughs> euh, xam nga Fassman nag baax ngeen trop mais kenn du leen déglu bu ngeen rek. mais euh, param yow yaa koy waxal nag vraiment. mooy Niang bu Ndaw yow doo ko waxal de. général bu Fass. waaw dafa bi dafa rëkkale ba ñu jeex. a yow yaa nii. yow yow yaa de. ñaar yow yaa nii. ñaar ñaar génn naa ci. même ma waxal ma de même ma ma expliqué la yow bàyyi la wax ak Fadam pare doo ko wax ak man maa ngi dund ma wax ak yow léegi dama ne waaw làmb dafa doy waar dafa am yoo xamante ni ba ba ma leen jàppee ci lañ tukki ñoom ñëwatuñ fii Sénégal bi ma leen waaw yow bi ma leen tàggee yow dama ne la yow su ma la naree suur si làmb waaw dama ne la yow su ma la naree suur si làmb dara ma bàyyi bëri waaw loolu waxu mbër ma wax. mais ñun bëri bañ ko defee dañoo bàyyi waaw yow su ma la suur too dara si làmb yi laa a wax yow yow général yow ma bàyyi làmb ma fu ma jëm ragalu moo dafa war a dem te combat yi gën a métti sa combat may yow laa war a laa war a bëri si kanam yow yaa ngi ciy sóoraale a waaw ma la wax ne la du taay yaa ko bëgg wax la du taay laay sóoraale si yow du taay du bëre ah, yooyu yëpp du sañ-sañ du doole du dara amul mu lay bàyyi xel si làmb barki borom daaru kii mm. kii mën a moom suñ ko mën a moom taxawee moom mooy bu amateur bi seen man daal damaa ñëw sax moom Ndiol la Mbaye Ndiol. man daal depuis ma la Mbaye Ndiol. loolu daal man daal général xamatuma la depuis ma commencé bëre. da ngay jàpp ndaa may di leen seere di leen jéem a def ay affaire man dama ko def man Ndiol laa comme yow. soo ma dóoree ma dóor boo taxee ma dóor Ndiol nga ngay may may Ndiol. xam nga xam nga lii nekkagul combat boo xamante ni dafa taxaw. waa dama lay wax rek. yow da ay mbokk mag di ma général. Ah, waaw waaw waaw waaw waaw bu jëm sama bu da ngaa ñëw pour wàññi xale bi. yow soo ko mënoon sukk xale bi naan ko ndax ah. yooyu ngay wax noonu. ay affaire nag li ma bëgg a ndax général bu Fass ndax ñeme nga man dama ñëw pour béré man ci la journaliste té lamb ji dama fi def lo xamanteni képp ko xamanteni tay rek war na ma jël man ma bëgg yow nga béré ak man yow da ngay bañ man dama daj ay coon xaar xaar bama paré man man man damay daj ay coon ci lamb léegi bo gisé ku nangul ak yow chaque jour bu jot ni may wax ak yow ni live bi sax du mëna yag ndax ci kanam tur damay man ma entraîner bi kérok bi ngi may wo param tour dimay expliquer wallahi azim heure bobu la jóge entraînement su ma woo expliqué ma bi bi nga waxee dama ne làmb instant bi fii ma ci toll nii nii man dafa am fi wane bëri ma fekk benn mbër ba sa kër man dugg ci biir di seetaan sama sama làmb ko dan ak bi ma daan dama koy seetaan naajement ci am ndax sama làmb yëpp jom laay wane fulla ak fayda musuma ñëw ci stade bi di def yëfu defeyam comprendre nga léegi nag man li ma xaw a jaaxal ba laaj booy bi ndax man musu man musuma waaw damaa xam ne yow général bu toogee fii ndogu ba suur naan meewoom lekk ay ginaaram sol maxanaam bu rafet du wax ay waxu entraînement man ngay wax yow yow nga fàttali ne ñaamu ndongo. ndox mi. non dafa non yow yow loo entraîné benn ma la dax entraîné ñett téeméer junni yoon dama lay wax rek. doo toog fu nooy tém sa kilim di wax saf di riime ndax dama jógee entraînement tey dama dem fay entraînement man weeru koor gi entraîné wu ma du ma entraîné weeru koor dama ay wor julli nelaw lek teud mais su ko am maa yow wax bu tax suma su ñew waajee ñëw si taxaw sa kanam di nga tal leneen lu du nga bëri ñeneen ñi. wa loolu man loolu man loolu man loolu man no, no, no, man ay ah. no, non non non. non non non non non non non xale bi la xale baa ngi offensé rek wax wax entraînement loolu ko wax yéen mbër mais du ma ko wax man man entraînement kenn du ma si wax sañ-sañ si biir géew kenn du wax waaw. daa ma wala lenn waaw yow yaa bëgg combat bi bis bu combat bi taxawee man maa la koy wax man nag moom tëjulu ma la sama bunt ah dama la koy waxaat encore une fois. baax na tëjulu ko benn ma ci làmb damaa damaa ci combat non mais mais moom lool la war a def. mais général xale bu jar moo la bëgg. non xale bu jar lamb moo la bëgg xale bu jar lamb moo la bëgg. xale boo xam nii non dañuy waxtaan général xale boo xam ne nii ci làmb waaw général général doo ñëw fii nag tey jii euh, xam nañ ne fas man nga te Fass euh, baax nañu loolu waaye. caractère bi tër bi match bi xam nañu ay professionnels ngeen. mën de waaye général xale fii xale bi daan ay moromam. waaw xale bi daa daan ay moromam. ñaa bu ndaw mbër yëpp bëgg a moom. ñaa bu ndaw ne leen hee man général bu. non loolu moom loolu moom jox ma ko même bu même boo ma ko duñ ko digal xeex. ba samay mbokk mën nañ ko. digal ak lenn nag mën nañ ko digal lenn nag mooy ñëw yooru yooyu noonu ñëw rek dugal sa bopp bi. Mm. jéem a bëri. général bàyyi sama mbokk man du ma tapé man doomu géej wax a bàyyi. man bu dee ay xeex ay ay loolu man loolu man xa suwaalu mu sax si yow ay làmb de yow waa léegi man soo bëggoon lu yow man man yow naa laaj. waaw mais mën naa détaillé seen mbokk tamit. non dama wax su ma bëggoon lu yow ndax naa laaj bi ñu may woo naan ma général ma leen waaw na ñoo ñu bëri dama lay laaj question man mën nga mën nga def mën nga def te tàggoo say say say mbokk non bàyyi tàggoo sama sama ay mbokk waaw léegi man loolu pour ma maa décidé bëre yow man maa décidé gis nga yow wi ma baal ma wax yow champion nga ndanaan nga barki démb ak koor gi ma wóor ni laa mujjee dugal sa combat yaag Aziz Pambaay sama estati te yëgoo ko te boobu mag fa dem waxaguñ moo tax waa xaaral ma wax rek moo tax moo tax ma lay laaj ma lay laaj baal ma wax mbër nga yow li nga doon waaw yow li nga doon li nga doon li nga dóor yow ak li nga am na ko nangul mais man li ma nekk nangul ma ko bàyyi sama ay mbokk maa yow ñooy bëri si biir génn hmm. kenn du fa nekk maa yow la waaw mais ñaar bu ma posé la benn question ndax gis nga ci général Fass non général Fass mbër la ci moom mbër la bëri waaw lamb booy bëri rek lamb booy moom dafa jàpp ne sama combat maag. général dafa jàpp ne numéro deux boo am danger moo tax doo jël combat bi quoi. lamb moom yi boo am danger. lamb yëpp risque la. lamb boo boo mënti bëri si àdduna rek risque la am na danger. am na lu la mën a yàqal. du ko fàtte daal loo parce que lamb loolu la. dam yee mais général bu Fass daa la wax at bu sifflé génn suñu diggante bu taxawee ma dugg ma ko su bëree ma daan maa la fi takkal téere loolu moom loolu moom loolu moom loolu moom. non non dëgg laa wax. promoteur promoteur bu ko bëgg. promoteur promoteur promoteur. non dafa wax combat bi taxaw. na ma wax date léegi kañ ngay bëri date daa waxuma ay xaalis de nañu wax date kañ ngeen di bëri date bu ñu waxee date date bu jegee amul problème. mais mais bugguma dugg tey si loo xamante ni xaw ma kañ laay bëri te ba ma dem taw ne ma di nga bëri lii wala temps wala puis deux mois wala pendant trois mois di nga bëri bu ma indilee avance di ma ma ndogoo ko. invité ko ndogu moom mu ñëw ndogu invité ko invité ko moom ndogu mu ñëw ndogu suñu jox ma ci sama suukaru koor jox ma ci sama suukaru koor barki yàlla doo Thiès ah wallaay ndeysaan mais par mais mais mais Zera xale bi ñeme na la trop nag xale bi ñeme na la trop ta nga bàyyi commentaire yi ngay lire <laughs> mais Zera su ñëw ci biir géew bi taxaw xam nga man moom coolee bi nekk man li may def nii sax tay la rek man mënoo ma wax man li ma mën mooy arbitre bi sifflé man ci biir géew laa xamee bëre man bëre xamee moo ko ci gars yi di wax ni man ci biir stade rek man stade bi sax mën naa ko xaw a tendeefal mais man ci biir géew bi arbitre bi wër ñu ba xam niin nañ wala niinuñu nga niin sax cóolul mais ba gis ba arbitre lii doo ko waxaat de waaw ndax man maa xamee laa ko feneen man waaw ndax man maa xamee laa ko ci biir géew ba pare wax jël nekk nii ma man la man la ñuy tuddee mën géew mën bis mbaru banlieue treize bi non may biir géew borom non c'est man géew ba sa gis sama benn làmb ba ma ne benn ñàkk fayda man en lay wax rek. waaye dafa am ñoo doon bëreel de. non ma di bëreel mais ma ne benn ñàkk fayda man doo ko gis si man. man de bi ma param pour woowee di ma wax naan ma naan ma naan ma. waaw général ndaw. man gëmuma sax param. xamul ndax gëmuma. général laa bëgg a baal di baal di quoi. dafa am lu ah. doo Thiès. waaw même ma expliqué barke yàlla doo Thiès. xam nga nii nii liggéey bi naa ko. ndax man dëngoo bi bi ma kanam tuuti woowee di ma expliqué naan ma ñaabu ndaw ma xoolaat ñaabu ndaw ak ñaabu ndaw li muy bëree boppam bi mu nëbb ma xalaat yooyu noonu ma ne ma ne ko amul. xaaral man dama dama ne param tuuti daf may kaañoo parce que param param yàgg na ma kaañoo daan na ma fekk dara liberté six di ma mbalak di ma mbalak ma ni param nag xam naa koor gi ak avril bii ñu dugg nii poisson d'avril la ma bëgg a def. léegi nag pour mu leer nag mooy lii mooy nga taxaw nii. bàyyi sa mu sëq nga ndog ba pare toog sa biir gàlle bëgg nag expliquer mm-hmm. ni man général bu Fass mais nag li may bañ param encore une fois damay bañ booy bi xëy suba ay mboqam nag xam nga lii dafay siiw parce que yow lii ngay def nii dafa waaw doy waar damay ragal ay mboqam ne ko kaay général mi daal non bu garaaw mais général da ngaa jàppale yow da nga am benn danger boo xam ne dafa nekk ci yow. bu mën a mbëri ma bëri da leer rek dat bi leer rek kii. mën naa dat bi leer Fadam. attends Fadam mën naa taxaw nii di la xool yow nga may xool nga lim. xarañaa xarañaa yoo xamante ne dama leen gans dóor leen daan leen wallahi azim. te yow yaa koy lim man du ma ko lim. dix mbër mën naa taxaw fii nii di xool man ma noppi ne teg. loolu am na dama leen fa fekk tànc leen. ñii dama dox seen kaw dóor leen ñu wàcc. ñii ma jàpp leen. sajaxal leen ñu daanu ñii ma jàpp leen. waa léegi yow goronu leen ñu daanu ñii ma jàpp leen. naa teel rek ñii ma jàpp leen. ñii wër ma ndomba daan leen ñii ma wër leen ndomba daan leen. ñii ma duma leen am na ñoom dama leen dóor bañ jël si leen. que ñi waxoon ki waxoon ne moom daf may jël freiné ma def ay lii def ay détails xam xam fan la làmb ji mujjee. yi ko indiwoon mboqam yi ko indiwoon ñoo ba ci biir géew bi ne arrêté. eh. ñu ko yóbbu ko. barke yàlla doo Thiès. li mu toogee ci Bécaye Mbaye di wax da doon jooy. bëri na li ngay wax ni yëpp yow doo Thiès. ba combat bi def eh, eh, semaine. Eh, di ne wax yi jëm teg bàll yi jëm nag ñoom Lacroix Ndoy di entraîné ak ñoom Giri mbër boobu noonu ay mboqam indi ko pour bët yi féex ci géej gi. pour mu jël yow yow ba tey bëri waat yow la yow waaw yow la wax yow. Malick Niang baa ma wax yow. non non mais wax yow. say mbokk yow Malick kon tax nga say mbokk nag amul problème. parentu ma ay ay tuulaat yow nga ëffal nag. parentu dana yàgg ëffal. mais damay ragal loo xamante ne après fi ngay mucc mooy. oh jum naa ne erreur naa ay mbokk booy bi mere la. mais non ñàkkul général bu pare. te loolu qualité la heure bu muus doo ngay def loolu noonu. doo mën a laal lu leer laa lay wax nag. saar yi dafa mbër yoo xam ne pour jël. dugal ko seen biir parce que bëgguñu nga laal yàlla te moom fu sa bopp bi mën a nekk. sama loxo bii dina ci dal. yàlla baax na. général. fu mu mën a nekk sama loxo bii nii bii bii bii. général bii xool ko baax

mais euh, euh, euh, général mayel mayel booy. ba ñëwaat jël sa temps ndax bu combat bi man di xaw nii ay bët ak ak ay su ma la jàppee ay coups yi. général dama daan sama ay morom daan sama génération ban jeex daan ay champion jël ay coups jël coups jël foowee foowee jël juddoo ay wax dóor. ma juddoo si man ma ma juddoo si banlieue màggee si banlieue nga may wax ay waxu xeex ay waxu dóor ay waxu ay waxu dundu mille dund lépp nga may waxu xeex man maa ragal loolu si yow. yow su ko maa yow ma gën a yóbbu sama laam ma a yóbbu ci ci mot de banlieue boobu attends ma waxaat leen yow balay ba nga ni banlieue ba nga juddoo. fa nga màggee fa nga yaram. depuis man may bëre ba tey bëre gu ma fekk benn mbër bu dëkkul si banlieue te dama leen duma daal waaw waaw loolu. dafa am affaire ak ñoom. loolu ñoom ñoo lépp safara. la mais yow. ñoo gën a bandi jéem combat ma yow laay wax. ñoo lépp doole. ñoo ñoo lépp galaaj. ñoo mu doole ñoo ñoo lépp te dama ne nag. ñoo mu doole. amul problème amul problème mais mais yow boo ma doole yow. ñooñu dama leen duma. param moom la benn laa la wax dafa ngeen mbër indi ko. boo ma doole daa ko ma bëri gënu maa ñeme. xam nga fan la param mujjee. xaw ma la parambalee yow ëpp ma doole da xaw maa sama yoon new ci de waxal wax ji booy bi moom yow xale yi ma la ñuy toog général mel ni dafa mel ni ñaar bu ndaw ko waa làmb nangul yow gisoo ko dafa mel ni waa làmb qualité yi nangul ñaar bu ndaw mu nekk champion nekk xale boo xam ne làmb da koo yaakaar bokk ci challenge yi yow gisoo loolu. non mais pare nga jàpp ne ñaabu ndaw. saa yi ngeen bëree da nga koy duma daan ko. daa umpale rek. alaaji Fallou Mbacke laa la gënal. déglu ma man ma expliqué la. dafa xamul ñaabu ndaw ñaabu ndaw xam nga sa coole fi nekk mais làmb ji amagul. mais ñaabu ndaw su fekkee man dafa may daf may daf may daf may xalaat loo kon man jaratul sax man may wax man may xool afisu làmb jaratu ko kii nii may waxee yow nii nii nii nii nii nii ndogooguma dog naa mais ndogooguma bu taxoon si ma defaree ko bagage ñibbi voilà. wallahi yow kii simbikat la barki Alaaji Fallou li may wax ni kaañoo ma. yow a kii xam nga kii tey xam nga kii barki Alaaji Fallou Mbacke. non non non c' maa gën a benn xale wallahi azim maa gën a benn xale benn kese nekk ma jox ko ba mu dëgër këj. Ah, ba am wax la wallahi azim ma gën a dafa neex waaye yow yow benn maa gën a benn xale. te nii ma lay wax nii xoolal. waaw li mu wax la rek. par exemple yow yow li ngay wax nii nii li ngay wax nii sax nekkul dëgg si ma takk ko kii booy. yow dafa da ngay déglu da ngay déglu après nga wax. da ngay déglu après nga wax. dama ne kii liy wax dama ne yow yaa ngi def loo lamb lamb te si man cent lekkal avance bi moo ngay waxul dëgg mais su lamb waxoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ba ma jàpp moom ñu koy préparé ñooñu duñ ko tale préparé producteur ça tu vas entrer tu vas activer le bouton billahi làmb waxoon dëgg param gi damay ba ma jàpp man moom ñi koy préparé ñooñu duñ ko tal a préparé ndax dinañ lu dul préparé booy bi moom ñi koy préparé ma koy seetaan man di ko gis ba nga jàpp ñu koy préparé làmb waxoon dëgg laa la waxante ni ku nekk ñu jox ko lim moom ci làmb ku nekk ñu war ko boole ki mu war a bëre ci làmb ma jàpp ñooñu noonu duñ tal ñaami

champion dafa nag bëgg a mel ni yow waaw yow may def ba mel ni yow mais ay nga ngay taxaw ni nga wax li nga du loolu du am de du taxee fi ñu lay indi ma duma leen ay lii ay lii di dem a teg bandi nii te yow da leen saafara waa faas yéen yëpp Fass maa leen mën Fass ma fa duggoon li ñëpp ma daal leen ba ngeen jeex dégg ma dégg ma dégg ma Fass yëpp maa leen mën Fass bu mu daj te ñëpp maa leen mën te yow sama avance boo ko jëlee ma duma la daan la ñett yi daa am na moom ñett yi daa am na ñett yi am na yow boo jëlee yow laa yow yow yow boo jëlee sama avance laa ma duma la daal. maa ngi leen nekk xale maa la bu doole maa dàq bëri maa dàq entraîné. loolu man du ma jël ñu ko waxoon ay mbokk ma leen jël si. bon ba waaw ban ban mbokk koy si soo ban mbokk moo ko jël si. yow soo yow yow bu ñu bëree suñu bëree maa yow ma simple parce que doole suuf. waaw loolu moom mbëri bëri nañ tey fii pour nga gis sa mbër bu ñu yoroo. mbëri tax bëri nañ. mbëri moom wax loolu ay ma yanu affaire yow. yow moom sax yow sa côté boobu noonu mun naa ci wax ak yow su ko dee yenu affaire yooyu noonu parce que yow moom sañoo sa bopp bi sañ biir ngem bi nga koy dugal di bëri. sañoo def leneen lu dul yooru raam ay sañoo sañoo sañoo xale bu ndaw préparé lamb moom waaj am doole liggéey jàkkaaroo yow nga ne ay sañoo lii ay xale yi booy ne sama ginnaaw gi waay ngaan ay yow sañoo taxaw def ma lii sañoo taxaw def ma yow maa dàq gem bi fuuf ñaar fukki junni yoon maa ko dàq fuuf lamb daal badam man ma man ma expliqué benn affaire bu ndaw ci lamb yow ma lay daan nga ne may sañoo lii. ma lay fes bi la daan nga ne ma sañoo lii. baal ma ko. waaye ba am na. mais général ne ma tey boo boo taxaw boo taxee fii ma taxaw ma fekk la xam ne xale bi. mais xanaa ñaabu taw. at bi sifle fu mu nekk ma fekk ko fa. ki du xale benn paas si làmb. loolu doo def wuy ma. Euh, param tu param déglul làmb daal am na loo xamante ni moom li ma ci làmb yëpp loolu mooy tax làmb ji neex wax ji bu bari supporters yi bari signature yi bari xumbal yi bari sotteeku gàllaaj yi bari lépp bari fi muy mucc mooy ñaari mbëri ci biir géew bi man loolu kese ma nekk neex ci biir làmb loolu loolu porte day am loolu moom loolu day am maanaam instant yi xam nga looy ñaan mais nag premier tour waaw dama ne la yow instant bi waa sa wax sa wax ji nga ko yëpp jëm a teg bandi nii nga am premier tour bu bu boo xamante am na date mu jox ni date deux mois maa ngi ñu waaj ñëw nga xool instant loolu nga war a wax koy tëgg yow am na ñoo xamante fi fi mu dañ laa yërëm ci deux mois yi ngay wax nii yërëm pour la lii ma yow ko yokkee nii moo waaw yow yooyu moo yow ngay nëkkate nga mel mel ko yokkee o mbaay nëkkate nga pataa nga eh, nga mel nga lo ni yow loo yore <laughs> moo ma état bu baax bi yor ma su ma ko ku ku bañ da ngay bëgg ñaa ngay waxal de. cappaacoli bi loolu xool. waaw yow ki liy wax nii ah. di wax ay li ma yor yow loo yore. ah cappaacoli bi. man damaa aay si ponkal barki Seydina Mohamed damaa aay si poids lourd. ah comme yaa ngi sóoree ponkal. lay wallaay taala dama lay dara deux mois yi ngay wax nii su ma ko loqee man. walaay yow yow yow muy mag soo mënee am doole man xale man la war a def. mbëri daa mën tàmm de. non non non dama lay wax ne semaine bi ne da ngay am doole yow muy mag soo mënee am doole. ma nga xamanteni sama laaf yëpp dama ko tërëng sang ba tey yaa ngi wax ñàkk aussitôt nga ne da nga am glace ngay bi la rek. général glace nga am ay wa dama bëgg ñu waxtaan may leen ma tuuti rek maam lu ma wax gaay yi yaakaar naa ne combat bii day combat boo xam ne nii combat bu war a taxaw la ñaar bu ndaw daan na espoir lamb yëpp ba mu jeex général bu Fass espoir yi ñuy coow ci lamb yëpp dina duma daan leen te ñaar bu ndaw amul benn moromam bu mësa a dajal ci géew ne la déedéet da nga fiy taxaw déedéet général nag amul benn moromam bu mësa a dajal ci lamb te duma wu la muy combat boo xam ne ni sénégalais dañ ko soxla nekk combat boo xam ne nii ci ñaabu ndaw combat déclassement la nekk ci ki nga xam ne mooy général mooy combat bi nga xam ne dafa war a dellu siwaat ci làmb général nekk benn mbër moo xam ne ni ak lu làmb yëpp dañ ko làmb ci biir géew général ñëwul ci laaj bi léegi nag ñaabu ndaw yaa ngi dikka laaj général foog may foog may soulagé wu giif tuuti sinon rek <laughs> nii may waxe yow di mën naa ko fekk fi mu nekk wallahi azim waa kaay fekk bu fi ba nekk. noonu laa lay expliquer. kaay fekk général général man leen benn problème laa soxla. waaw. bu Ndaw. Niang bu Ndaw damaa bëgg nga taxaw nga wax ak sénégalais yi. sa combat ba Niang bu Ndaw bu taxawee ban Niang bu Ndaw la ñu ci làmb bër ñaa bu ndaw lañ war a sama ko daa jàpp ne général dafa nekk lamb bu nekk moom tey te bu la dugg man loolu mooy sama lamb mooy sama combat man instant combat bu mu war a bëriwaat sama ma ko cité moom man ragaluma loolu tapatuma loolu yaa ngi dégg gis nga daa am ci wax ci bëri trop ba am ci lu war a dem mais mosu leen gis combat ñaabu na bu taxaw xeex xeex xeex kii nii war na rasulullahi billahi wallahi tàllahi billahi laa ko kii kii suñu bëri su ma doon bëri tey dama koy dama koy dóor ba ba ba ba ba mu génn làng mi rek daan ko ma xeex fuuf ñaar fukki junni yoon dama xaar si daal booy dip xanaa si boobaa sa bopp bi ma nekk booy la science générale. xaaral général lu mu mën a xam général lu mu war a kan mooy général développé développé nga jël. kii bu songalee du daan ak ak di la bàyyi di bëre di bëre ba mu jumloo la xam na ko bu baax maîtriser ko xeex bi yëpp moom bu dawee xeex sax bu dawee xeex benn day daw jàpp buuxante naan maay damay xeex xeex xeex xeex bu dawee xeex day daw jàpp jàpp indi buuxante ñëw indi songale te moom mënuma songale njool laa comme yow te man lu ma bëre ren daaw du ma ko bëriwaat dafa loolu sa bopp ma sooy bëre musul nduroo yow yow ma ne yow su ma doon bëre tey suba mën loolu bés tàq du la yéem soo def nduroo sama dëgg la pied daf daf loo dëggal ko pied droit dina pied gauche bi hmm? mu gën a mën a xeex mu gën a mën a neex xam ne li ñu naan picc dama laa ne maa yërëm loolu ma yërëmee waa léegi général soo gisee ma bàyyi booy bi mu développé dama laa gis nga nekk grand champion boo xam ne yàggee ñëw ci làmb di wane sa bopp bëri bés bu nekk ci làmb ñu ne la ñaa bu ndaw ñaa ndaw nekk xale boo xam ne nii daa def ay preuve ci làmb ban général lañ mën a gis ci làmb buñ ko booleek ñaa bu ndaw ban général lañ mën a gis ak ki nga xam ne ni tey jii mooy waa ñaari tali ak ak waa ko man léegi pour ma dem nan lañ mën a préparé xale bi lamb dafa tollu foo xamante ni da am ñoo xamante ni ñoom bés bu ñu bëggee bëri ak yow yow li nga war a def mooy nga bëri ak ñoom comprendre nga man damaa toll noonu ci làmb foo xamante ni damay ñëw ci làmb duma ma bëre dix secondes du ma bëre quinze secondes damay ñëw jàpp daan dóor jàpp daan dóor jàpp daan léegi ma jékki-jékki ma man fii ma toll nii que ñu may bëri nii man dama leen mën trop nañ ma jox ñoo xamante ni tey vraiment jiitu nañ ma ci làmb et cetera ci lañ ma jox ay lay Pythagore jox ma et man ma dem bëri ak ñoom mais moom li muy bëgg a def nii ci benn côté baax na quoi bonul ci moom parce que expérience kese la koy yokk mu ñëw général duma ko daan ko day tax mu dem gën a defarwaat gën a gën a yokk dooleem gën a xamaat nu muy def pour bëree ñeneen bi loolu léegi la ci bëgg nag léegi nag bis boo wax naa ne say mbokk problème day am comme ça loolu nga nag. man mom ma ngi ni je suis un lutteur entraînement momu ma job ba paré mbeur la man tay même bu ma amul combat damay dem ci kii di entraîner di and ak samay frère di len assister amul loh tamit ma ci ma ci di sant wa face yeup di wax ni man man may seul mbeur bo xamante tay mën na ko wat ni man depuis ma nek écurie face ma nek fa supporter ma nek fa mbeur ba tay ji may wax ni musuma fa xulloog ben dirigeant musuma fa xuloog benn ancien lutteur musuma fa xuloog benn lutteur en activité musuma fa xuloog sama moroom boom man maa ko fa fekk musuma fa xuloog ki ma fa ñëwandool musuma fa xuloog ki ma fa fekk ñoom ñëpp jàmm laa si ku ciy bëre su ma ñëwee taxaw di la assister da ngay man ma assister la su ma la indilee gurtu sax su ma la koy sotti doo ma ne foo ko jëlee loolu ma leen ciy sante bu baax a baax baax di leen gërëm léegi nag ñoom it ñoom ñu pare moom pour di ma fay ay bor yoo xamante ni man samay làmb dafay sorante trop man dama lay daan ba pare sax toogaat ay un an comme daaw comme comme comme depuis man ma bëre man bëre ma nii te li ko waral mooy mbëri dañu ragal ay dóor bu dee dóor nag léegi damay teggi sama loxo parce que man bëre laa gën a mën ko dóor dóor dafa ma dab nii rek may dóore parce que noggatu leen dafay xaw a neex léegi leneen li ci topp mooy moom bëgg na jël ci dóor yi dinaa ko wàññi nag waaw bëgg na ci naa pour jox ko ko waaye nag bu ñu weesoo bul ne dama soxor ay dama bon ay affaire yooyu noonu làmb moo ko laaj moo ko laaj te ma rek bu laa la eh boo ma jëkk dëbbal ba mu non du ma la rey moom non du ma la rey moom may dóor ba dama arga lay dóor ma ni du ma la rey moom mais su ma la jàppee ba bàyyi la di nga ñeeku dee loolu c'est que tapet ñun duñu ragal ñun buñ buñ daxaloon si làmb dama def leneen bu yàgg dégg nga mais la fekk li nga war wax mooy ñëw nga booy bi mbeur la sampi la prouvé na mais bo ñëwee ma dama jëma tégal bande daan ma ay eh, dama lay door rek dama lay def lii rek dama lay la melni man. non fa foofu wa yow bo may bo bo may door yow général ma xana may neexal. ma ne loolu day bo may dóor waaw yow bo may door xana may neexal. yow xamna yow yow yow yow yow ëppu ma tay gënoo ma gudd ay loxo ëppu ma doole gënoo ma ñeme gënoo ma capable nga dama lay door loolu lepp ay mo ngi wax nii yëpp xeetu bo bo may man moo ngay wax ma sama xol lay tanglo dama lay door doo ma Guru su ma dóor yow man gënu ma nekk jàmbaar gënu ma nekk bañkat gënu ma nekk siisumaan man jàmbaar tax may reyante di entraîné chaque jour man saison bi day day tëj sax man dem nekk Gambie nekk fa di hivernage bu ma wax ay wax entraînement jéemal fexe ñu am date promoteur teg suñu combat man ak yow léegi nag su boobaa loolu mën def. ba pare ñaar ñaar ndaw bu ñu bu ñu tëj ci combat. maanaam taay ma ne boobu. Param Tour. lu tolloo li ngay def nii na nga gaaw lu tolloo taxawaay xaaral xaaral même moo waxtu waaw waaw Param Tour li ngay def nii na nga ci gaaw trop parce que man maa ngi ci commentaire wax yoo xamante bis bu ko ñaaw xam naa mënul liir bis bu ñu ko ko liirale dina daw alors ah, lo loolu ya, yaa ñoom la concerné mënu ma concerné mooy yow daan bu ma war a daan ay commentaire ak yi ñëw waaw man mbër di di param billaahi loolu mënul nekk la gëñal lii ngay def nii na nga ci gaaw ndax di nga ma waat téléphone ne ma see ah booy bi de. mujj nañ booy bi de kon kon lii moom naka si moom quoi ay booy bi de ay lii. man ah, engagé man man yow man engagé borom tuuboo borom tuuboo téléphone. ñi nga xamante ne ñoom moo tax yéen yéen bëgg làmb. baal ma wax la bu baax a baax a baax a baax. baal ma wax la bu bu yow borom tuub man moo ma woo. moo ma woo làmb wax na dëgg. su fekkoon làmb wax na dëgg. général ma ne ko dugal général. doo ma laaj. yow maa talal loxo. loolu laa lay maa la laaj maa la tëg waaw ba pare nga ne di wax ay wax yoo xamante ni amul boo amul génn yow man maa la laaj. maa la tëg maa ma amul ma booy dañuy def sans accord ak seen a waxtaan maa la laaj maa naan lii teel na xaaraatal tuuti. ba teel dama leen jëndiwaat ñeneen ñi nga xamante ni tey seen loxo du jóg nga dem bëreeg ñoom après loxo du tuuti. ay loxo yu du xaalis ci làmb. mais nii may wax loolu man utuma xaalis ci làmb de. loolu yow yow yow yow yow yow yow da ngay ñëw ñu bëri maa yow. waa da ah, dafa nànk da ngay ñëw ñu bëri maa yow ma ma mel la coow mel la xaalis yokk la ay defet waaw. dama koy may coow meewoo hmm? xaalis. yow suñuy bëri maa leen kese. loolu ñaar bu doon da nga koy may coow meewoo xaalis. Eh, man bëreegu ma fi benn mbër mu ko ma kese def ko sa bopp bi. te su may bëree ak yow. waaye bañ toll foofu bañ toll foofu. barki alaaji Fall nag laa la diggee xoolal. déglu ma ma leeral lii nii lii nii lii nii dama ko bopp. amul problème man bëree gu ma fi. amul problème garaawul mbër boobu ma kese. amul problème su may bëree ak yow. amul problème waaw garaawul. amul problème man damaa soxla yow. garaawul damaa soxla man dafa am lu ma wane ci eh, na la fay amul problème déglu fii déglu fii. na la fay trente millions. amul problème ma jox ma benn xoolal. man la déglu garaawul. man la déglu amul problème. déglul man du ma mbër xola man duma mbeur bu son man ma man ma wax la li sax waxuma ci ak yow ma parantout man li waxuma ci ak mom dama wax pour ñeneen man musuma taxaw keur bu promoteur waaw man musuma wo promoteur téléphone diko sarax man musuma jaayante ak promoteur dara mhm. man promoteur wallahi azim jam la cheikh ak ñom cheikh ak man jam kuma ci wax téléphone lenn la da nga lamb bu neex man ma wolé la félicité la wala nga woma ma ne ma général temps gis nañ la yaa ci forme wala nga ne ma général ki la la bëgg dox man ma man nekkuma tàng na jër tàng na balaa ngeen a balaa ngeen a woote yéen ñaar damay may Modou Anta suñu confrère na boo xam ne ni nekk ci làmb comme ñun nekk nit ku baax xam làmb lool ñaar Modou Anta ko Fadam maa lay nuyu muy la Fadam maa lay nuyu di la ziar bu baax di ziar lay fay di ziar ñaabu ndaw wax dëgg yàlla comme comme li may wax chaque jour rek Fadam yow moom kenn dañ lay sant quoi parce que diaspora bi moom live Instagram bi yaa ngi ci liggéey liggéey bu am solo bàyyi sànq laay seetaan sa émission bi ak sa kajoor rek damaa dem ba yarak rek damaa yarak rek woo téléphone quoi bilaay mais nag combat bi bu fekkee ne général bëgg na combat bu neex la bu dee général bëgg na parce que xam nga lan moo tax. Hmm? ndaw yàggul dugg ci làmb def ay preuve mais kii dafa nekk ci làmb bu bëri ci combat yu metti combat yu xaat te ba tey gaa yi nanguwuñu ko jël. bul umpale ne général mi bëri na ak ay laay Pythagore ay tafaaleer ay Vandam ndaanaan it nopp Pambay sax moo mujj parce que moo Pambay bëri na deux fois xaw trois fois. loolu moo mujj loolu moo mujj ay tafaaleer ba muy bëreeg ay tafaaleer ay vandaam loolu du tey ay laay Pythagore loolu du tey moog Lac Rose retardement moo am ci lamb mais heure bii nii ku ay ñoom Forza nekk ay ñoom Sa Thiès nekk fi lañ war a na nekk mais nag booy bii dafa dugg ci làmb 2017 2005 mars 2000 2017 ba duggee ci làmb premier kombaam am la daanu guy gi booy ñaa loolu yàggul moom mii moo bëri premier combat bi ba ca jógee ba tey nag ay dynamique de victoire la tegle man mhm. nga ko ëpp ay komba mais doo ko mën a ëpp coow ci làmb non xale la boo xamante bi ni daa bokk ci ay moroomam waaw mais moy li mala wax bu fekke ne general bëgg na dal combat bu neex la parce que general dafa am lu mu def ci lamb daniel combat mom ak Pambay seetaan nga ko bat ak tontu la te Pambay mbeur mënu ko def non de japp ko duma ko daan ko yombul de Pambay dafa ës de bari na gaayum jomal fi bari na gaayum këpp seen yelwaan mais daniel combat ci tf bi da ko japp duma ko daan ko facilement nak Pambay mom Pambay mom mais ñaabu ndaw ko général nee na lu mën a am ci àddunaam guddi yi ñu toll ñaabu ndaw ko gënal. ma laaj ko lu tax mun ne bu ñu jàppantee ñaabu ndaw day dugal boppam ci suuf du ko ñemee xool. mais param ñaabu ndaw nee na ko général bu am discipline amoo yow lu ma lay sóoraale ci làmb. loolu booru Anta xaaral xaaral xaaral di nga ñëw général. man kay loolu li ma ci wax alhamdulilah laay wax comme général bëgg na alhamdulilah parce que général lii mu def dafa baax ci làmb fadam ñoo xam ne dañoo def ay preuve ci làmb bëreeg seeni moroom mm-hmm. combat jànq combat yu metti yëpp ñu bëreeg ñoom seen yeneen morom yi nangu ñu leen a jël ñuy xool xale yi nekk ci ginnaaw mu leer na la ëllëg bu nekkee roi des arènes bu ko ñaabu ndaw nekkee du bett kenn dalay leer ne boo ko bëree moom di nga am coow mm-hmm. li nga amoon combat ba dina fees amateur yi dina ñëw kon bu général nangoo jël combat bi alhamdulilah la ñuy wax te yàggul dara combat bi day taxaw de waaw man li ma doon wax général ba ñu bëgg mais tamit Niang ndaw na xam ne général mii amul combat bu yomb de kii day xeex ah, am naa lu ma xam ci moom de ni ma xam ne Niang bu ndaw Niang bu ndaw moom premier combat ba dernier amul lu ma ci ump mais général mii damaa dëkkoon benn tali di dem Grand Dakar man xam naa ko bu baax xam naa ne peut-être man na maa baña xam mais xam naa ko bu baax a baax li muy contact bëree ko arène

may bëree ak moom. waaw wallaay dañ ne ma bu sa loxo jóg. ndax moom mbër la boo xamante ni am carrière te da ngeen war a bëre bëre na noo koy dóoree dootu la jël ci àdduna. moo tax suñu premier combat bi ñu ñu jaxasoo jaxasoo bu metti boobu ma daan ko jël boo xamante ni ba tey bii may wax ak yow man seetaan duguma ci làmb. bi mu ñëwaatee dama ko dóor ba ñu man wallaay azim sama benn frère ci combat boobu noonu dafa amoon tànk buy metti ma koy seet hôpital Pambaay njëmmam hôpital la ko tekkee li may param tuur mu ngi may dégg ndax mu ngi woon gis troisième combat bi ma ko jàpp takk ko ba mu dëgër mm-hmm. bi ma ko dégg mu yeggale mu ànd euh, yaxi lépp laa dégg mu naan kar mm-hmm. léegi nag moo tax man may wax ñaar yow moom yow moom sax xale bi man waxuma ak yow waaw problème waaw problème beneen bi ci topp man yow li nga mën waaw li nga expliqué léegi nga ni problème buy ma nga ni man yow man li nga mën di nga jógee benn tali di ñëw Grand Dakar xam naa la bu baax dégg déglu général mu yeggale déglu général ñaa mu yeggale. waaw di ñëw. waaw Grand xam naa bu yàgg. mais gis nga làmb dafa doon benn affaire boo xamante ni am na lu may xaritoo ak yow sax mbër yi après yow dañu lay jël teg la ci benn côté ne yow mën na faral Lamine bu Lutte TV laaj ko wallahi azim musul jógee si suñu làmb depuis depuis appareil la daan indi du ñu photo di ko dugal di dem di ñëw bu ñuy bëri muy indi ay mbiib ay ay ay badji di ko di ko jaay ci kon bi nekk suñu frère ñu ànd ak moom ngoro di ànd ak moom fu ne mais depuis mu commencé liggéey si làmb dama ne ko foog nga am écart ci ñun ndax mbëru baal yi dañoo am benn habitude képp koy àndal rek dañ naan ay yow moom nga faral xam la bis boo demee si ñoom dootuñu la jël interview bis boo bëggee am interview ñoom dañ lay koy xañ supporter yi di la sànni ay ma ne ko defal nga job ndax ku fi nekk danga nga war am loo yóbbu wallahi asi moom moo waral suñu suñu mu demee nii yow nag moo daan dama xam mm-hmm. bu baax nag param wala param tuumi ma xam ko bu baax mu daan xaman tuuma ko léegi waaw dafa daal ma développé tuuti parce que léegi li ñu am nii léegi général da ngay mel léegi ñu ma xaaral xaaral général dama bëgg dama bëgg ñu ma koy ndax émission bi ñëw mu daan su fekkee yow su fekkee yow tax naa ne ne bu la neexee nga def say mbokk bañ ne waaw nga ñëw maa lay. xaaral ñaar dina la may nga neex dina la may nga yow yaa ma bëgg. maa ngi lay sant. mu ànda mu ànda. waaw ñaar waaw nangu nañ loolu nangu nañ loolu. man dama ko nangu moom lu mu doon. léegi ñaar. loolu soo ñëw ko bañ ndax man dama ko fi def. waaw dafa la nag bàyyi ma wax rek. man dama ko mais tàggu ma lu ma def la. waaw ma dama. loolu moo ko wax la yow. waaw c'est que su may ñëw man xoolal musuma ànd ci làmb koo xamante ne tey ñëpp naan kii de vraiment mooy jàppale général kii de moom mooy defal li général euh, kii de mooy sotti général Gallak kii de mooy wutali général Gallak ba heure sa loolu dama ko gëmu man damay waaw léegi dama ni moom doole bi ma am non non man lu leen ñaabu ndaw ñaabu ndaw man la moom moom moom bàyyi ma wax parce que laay ma micro dafa am ñoo xamante ne yaa ngi dégg bu gisul ñooñu sax du bëre man nag igri fa sax waaw dama ni musu ñëwul wallahi azim dama général mu ànd général. te bu ñu sifflé foo mën a nekk nag li nga xamante ni moom man dama lay fekk fi nga nekk. te bàyyi moo tànnal la samay loxo jàpp la daan la. amul problème <laughs> waaw problème naaj waaw. dégg nga ko Aca Aca Niang. waaw man général dama ko nangul moom li nga xamante moom la. loolu bàyyi di ko wax. loolu dafa général bu waaw général bàyyi ma wax rek dañuy waxtaan. waxtaan loolu bul ko di wax loolu man. waaw waaw waaw am waaw. lu ma ma la gisee moo koy daan man boobu man Boy Niang ba ma ah. bëree ba laa waaw ñaawaaw lool. ba ma ah, daan ba toog si baax dóor maa yow laa laaj. waaw laaj laaj laaj nga mobile laaj général laaj kan. Yékini Junior xaw ma. ama neex laa laaj. waa xaaral xaaral ama neex ñoom duñ morom booy waa xaaral amu nekk laa laaj. laaj laaj liggéeyu si kon fu ma demee ba damay bëri Zera kon Zera amul lu muy soirée si moom. maa maa la ko wax en direct ba ki sama gàlle ba ba mu waxee général tontu. waaw man de maa bu faas. man la waaw. kon moom bu taxee fii tey dugg si live bi tey di jéem a def yoo xamante ni man ay reer la may def quoi donc après man ay reer may jàpp parce que koo xamante ni moom moo ñëw bëgg bëri yow bëgg la jàpp daal la mais mais Fadam en tout cas daal instant yi ñaagu ndaw ak waa Fass Fadam 1-1. mais noonu la non boobu. am na fa benn am fa benn victoire. non mais may naa leen ko ba ba boobu may naa leen ko ay science moo ñu boole. lamb yàq ak yooyu. xam nga yow général xam nga maas maas maas mi nekkoon seen écurie maas maas te mu nekkoon euh, mécanicien raay booy joon moo ko daan première combat. dafa a sànni bu la moo ko daan. waa léegi xale màgg na nag. léegi maas daa bàyyi yaa fi nekk ñëw. Ah, léegi booy bi maas gën a maas xam nga lu ñu doon maas. maas xam nga lu nga waxoon. kon boobu soo bëggee combat arègle boobu moom yëpp mooy seen combat. dañu leen na. damaa màgg def jar. Moranda. yow ñëw ñu bëri ma ak yow. Moranda. waaw Zé. waaw. boo taxawee kii trente secondes. dootoo ñëw ci ngir bi. mais 2017 2023. déglu ma. déglu ma bi ñu bi yaar bi ciblé. mais mais mais général général général cooli cooli bëri na xamante ni nga ni da nga koy maye ban la yàqal la déglu ma dañuy waxtaan léegi général loo càggatoo. ñaar ban la maye ba ba ba bëri. général loo càggatoo. yow. ne la bi nga bëree ba pare ba pare. waaw xaaral waaw. waxuma du victoire victoire la mais xam nga. victoire victoire la dama bëri Tapha Gueye 2 pare coow yu bëri. sama combat ma ma Tapha Gueye daam lu ñu boole. ku ne xam nga lu ñu boole ma nag moom. ba nga pare. mais moom nee na moom nee na moom moom nee na moom am doole daa mën a bëre day dóore nañ ma ko jox. léegi wax ji jeex na jeex na. Tapha Gueye ba nga pare ba pare. da jël benn 2 millions. waaw ko fi mu toog baal ma àq jox ko deux millions yi. man tey jii tey jii ma jox ñoo fayal ko ko kay. waaw léegi ñoo dóor ma yow waaye ñëwal ñu bëri ma fayal ko ko. Malaw Seras bu Pikine ñu fayal ko ko. ma yow ñëwal fayal ko ñëw nga bëri yow nga faj. mais mais c'est vrai lan la naqari ci yow yaa war a ñëw faj lii. non xaaral. da ngay xaar man ma expliqué Euh, Maro Sène mais naaj bi jeex na naaj bi jeex na dañoo am yeneen war a dem. dinaa mu xamal dama ne samay supporter man ma leen yabu ma écurie ma samay noon jël bay jël day daw nii lañ ñoom dañuy daw seen duñ la sañ a xool. ñaam ndaw génn am yow daal jërëjëf dama ne leen sañu ma sañu ma. ngeen ma sama grande carte ñëpp dar ma may dem di bëre jeeg Maro Sène sañu ma. Mm-hmm. ñaagu doo dina ñëwaat. waaw léegi général. yaa xale bi tàng na jër. tàng na jër. géej waay Paa waaw li may tàggatoo mooy li may tàggatoo mooy. lan ngay tàggatoo loo looy tàggatoo tax ngeen bu ñëw stade. yal la yàlla suturaal yàlla defal la xéwal yàlla may la loo yóbbu sa kër yàlla may la barke parce que làmb dafa lamb dafa metti trop trop trop trop trop so amul lo takale ci biti so amul ñu la jappale so amul dara affaire bi ngay metti sa way su du baax sa lekk du baax sa nan du baax di nga simeku nak gars nan mbeur nga yaa ci forme wala ñu lay ci geej ji mais fekk yow sa carrière sa mënul yàgg parce que amo hygiène léegi may ñaanal mbeur yëpp yalla defal leen jamm ak salam ak sutura di bigam sama gaay yi xamante duñu mësa bayyi ku ci mel ni Mor Connection mom da ci jakk tout temps sama frère la sama gaay la mbay booj aussi nono ah. sama mama soor mom du baye mang koy ñaanal jàmm ak salam ak sutura di ñaanal yalla musul ko yalla defal koy xewal yalla defal ko jàmm di gërëm fami seenen yëpp di sandu ba param yoy ma lay bigëb di bigëb mo rande mi ak mom mi nga xamanteni tamit vraiment mom mo waral tay nit ñi sa xawma dégg ni parce que man mom limay jënd bari wu di gërëm ñëpp ah. mm-hmm. di ñaanal père ba mom daf may jappalé bu baax mm-hmm. di ko gërëm di ko di ñaanal jàmm ak salam ak sutura di ñaanal sama benn papa bi nga xamanteni mom moom vraiment musuma setan muy père Assane Mar diko ñaanal ba di ñaanal wa fas yëpp mag waa Fass waa Fass yëpp di ñaanal la comme am bi di ñëw oh, yalla sutural ko. sama xarit la Assane Mar sama xarit la. Serigne jay aussi yalla may ko. inshallah kep képp kuy mbër nekk Fass Forza yalla may leen dam ci barke Sëñ Fall jajeuf le grand champion général bu fas tay mom lañ dalalon moom ñaa bu ndaw. ñaaw bu ndaw woo naa ko téléphone léegi ne ko lan moo tax nga génn. waxul dëgg la damaa yàkkamti sama xool yi ma xool ko sax xool. sama bët yi muy gis nii mu xam ne général dafa décidé. loolu moo ko daw la. mais. kan mooy tàggatoo waaw génn ma moom tàggatoo. ko may ma tàggatoo mu ngi ko may. barke su xool moom génnal génnal général génnal général.

parce que ñun suñu génération. Mm. ñun ñu fekkanteel yéen la. ñu ngi jàpp si maanaam ñu suñ tur fu mu fu mu egg si làmb rek dë dëgg la suñu ñuy góorgóorlu mais yéen itam jàpp ngeen si. dañ leen ñaan jàmm li ngeen bëgg ci liggéey leen ko bu baax a baax a baax. waaw di nuyuwaat di bëggee waat ñëpp xam nga képp ki nga xamante ni rek. Diaspora nga di bëggee ñaabu ndaw ne Diaspora bi rek maa lay bëggee sama waa koñ Gunaas Géejawaay nuyu xale yu may topp waaw du nuyu xale yu may topp yëpp parce que palam goye dañ may topp quoi xale yi waaw bàyyi yëpp treize bi yëpp maa ngi leen di leen bëggee di la wax jàmm si yow kontaan naa. di woo promoteur yi nañ dañ gaaw si di ngi général. jërëjëf bu ndaw ma tëj gëmuñu gannaaw bi